asalaamaaleykum. waaw waaw waaw Guèye Massiré sa Dieng. yow nee naa la sama moom moom suuf seen ndox mi koñ bi. Mhm. taataa amatu fi. koñ bi am na sécurité. kenn jooyatul xiif. si kenn jooyatul mar. si. nekk comme député ci koñ bi lu la neex def tey bu la neexoon récupérer la ci quartier bi yëpp ndax sa héritage maam la ni ko yeneen policiers yi defee yaay géer mhm. yaay garmi yaa tax ñu naan député jërëjëf man lu ma gën a neex ci moom uh-huh. mooy neex di dirat gi ak lewet gi dëgg la bu ko neexoon dañu ci battu waaw wala romb dañu saaga ndey ku ne mu jàpp la tëj waaw boo nee oh mu tëj waaye aajo moo ci gaaw mm-hmm. boo nee boo nee oxo mu nax la mu nax la te moom ni lay naxe du la naxe nii de xam lu may naxe uh-huh. loxo ci poos barke yonent bi maam da lay xaj ba nga yaakaar da lay. da lay dóor da yaa baax noo bon yow yaa tax sëñ bi naan ah, ñibbi sa kër ba wàcc nga wooy woow ñu naan ñibbi sa kër ba wàcc nga <laughs> waay waay waay <laughs> jërëjëf monsieur le député kontaan nañ ci yow gis nañ sa taxawaay ci koñ bi wax dëgg yàlla nii moom yi daal boo ko jàppoo da ngay dem ba président de la république de Sénégal amiin waay amiin boo amee ko gën a kawe da nga koy doon bu soobee yàlla am na mérite bi sax am am na mérite bi yow président da laa jàpp moom da cay jekk moom yarut biir ah, taatam rëyul waaw kon kay moom moom moom dëgg yàlla président day xanaa xamul ni castingu président dañ ko war a def si eh, physiquement moralement si ah waaye waaye jël ndaqatagu ñëw nga ko téel moo moo am nag luñ bëggoon a waxtaan ak yow mhm, eh, ndax man maa defoon jalooree ca jamonoy nawet ba ah, mhm. wax ko ko mhm. wax ko ko xale bi doon lépp ci lap ci dax gi dex gi nekkoon fii eh, ci ci tournal bi boo tourné moo ko seppi woon maa dugg sóobu xawoon na ma lap sax waaye ah, moom damaa soofe bakkan kon kii héros la si vraiment héros héros maanaam mooy jàmbaar. ah jàmbaar jàmbaar moom tamit nawet bi bi bi bi bi buntu kër ba Baye Ndiaga taayee. Mm-hmm. taayee ba mer ba laboon fa. waaw mm-hmm. euh, maa sakk taataa bi manqué ko. yëpp mm-hmm. ah. foofu ndox moom taawatu fa. ndeysaan dama ko naanoon. waaw si loolu ah, ay risque dafa naanoon de. Ah. naan ma ko woon de. Ah, kon noonu la dañ ko ngàcc rek tuuti. looloo looloo soxla bi. Ah. waaw defar jaloore daal ñu ne woon nañ ñëw ci député. Mm-hmm. bu ko defee jaloore yooyu yëpp ma defoon wax dëgg yàlla. dañ ne moon giseel député bu gisee député. Mm-hmm. am na loo xamante ne dinañ jóge ci président de la république muy mm-hmm. ab procédure bu mu bind. boo xamante ne pour ñu def jaloore la. waaw ma ñëw nag pour jël sama wàll ci jaloore yi daal. waaw si. Euh, maa ngi leen di remercier bu baax papa. vraiment maa ngi kontaan bu baax tout d'abord. et eh, nit ku baax rek mooy mën a gis eh, baax si moroomu nitam. vraiment yéen tamit kenn kenn kenn gënu leen a baax. kenn gënu a baax. di wax ni li nga xamante ni moom la ñuy def si gox bi yëpp. Euh, ce sont des choses yoo xamante ni suñu devoir la moom moo ñu war comme que dañoo nekk si kaw di servir dëkk bi mhm. balaa ñoo servir ñeneen ñu servir fi nga xamante ni foofu la ñu foofu foofu mhm. la ñu dëkk surtout euh, surtout yow fooku fooku ma wax ko président ah, si bokk ci bokk bokk ci ñi nga xamante ñoom la ñuy takkal raay aw waay waay waay waay bu ma nax waay di pute non non bu ma nax du ma nax ndax sa soxla bi <laughs> euh, maanaam comme on le dit en wolof rek waqut bu dajee gestu la waaw waaw parce que ku ne umpale woo leen ni. Mm-hmm. dañoo dëgmal élection. de la république de la république. Mm-hmm. Euh, te nag fu mu ne nii dañ leen soxla woon. waaw soxla seen taxawaay. Mm-hmm. ngeen taxaw suñu wet. jàppale ñu gunge ñu. ba ba ñu mën a jot ci ci bopp ci bopp réew mi. maanaam élection yi jàppal na gañe ndax man góoru mbootaay laa. Mm. yor naa ak mbootaay. yor naam natt ci koñ bi natt boo xamante ni wax dëgg yàlla la ca nekk ci mbooloo ëpp na cent personnes mooy wax nag may waxaale daa mel ni ànduñu hmm. yow ni nga nekk góoru mbootaay loolu sa bay ni nga bo ah, waaw waaw si si si góoru mbootaay ngeen daal si si si incha allah jàpp leen ne lépp lu ngeen xamante ni moom hmm. am ngeen ko ci soxla dinañ ci taxaw comme ni ñu ko yàgg defee. dëgg la te te comme que ci koor gi lañ ah, euh, joxe ay suukaru koor vraiment yu duuna duuna duuna. si waaw moom moom laa bëgg joxe. donc gannaaw bi ngeen ñëwee ci man. Mhm. xam naa yëpp am na ñuy àndandoo rek ma jiital leen. Ah. ñu xool naka la ñuy defee suukaru jox ko ñi nga xamante ne surtout ñoo ko gën a soxla. Ah. ñu xool ñan ñoo ko gën a yelloo. Mhm. xam naa leen xam naa leen ñu jiital leen leen. mais man mii xam naa leen. te te te moom moom. Uh-huh. balaa président di la décorer man mhm. maa lay njëkk a fa nga dëkk mhm. fekk si sa biir nawle si sa biir njaboot mhm. ma teral la ba la ba pare de la jooy bul jooy bul ah, jooy merci loolu moom loolu moom loolu moom député merci beaucoup damay jël seen numéro merci ah. beaucoup jëlal sama bos déedéet déedéet maa def jaloore di man defuma ah, def def nga waaye jëlal soixante dix huit soixante dix huit cent dinaa la dóor na na kenn joxe soixante dix huit baal 373. boo wootee rek mën ngay jot. mën ngay jot. après nga bi Sakura Badiane. Sakura Badiane Sakura Badiane. Eh, Père mbay Père Mbaye Père Mbaye. Sakar la ne di. Ah. <laughs> Sakar la ne di si si boobu incha rabbi dinaa leen dina dinaa leen woo. incha allah boo leen jàpp bu ñu xool naka lañ def jàpp bi. Eh, mu ñu paas de incha allah. Ah, <laughs> eh, <laughs> waay teel. <coughs> bariwul xeeb na comme que koor gi daa tàng naaj bi tàng. Ah, waaw ah, bariwul nag xeeb naa ko trop mm-hmm. cent dix mille la ngeen ngeen. Ah. ngeen ngeen ngeen ndogu si rek. cent dix mooy lan ci wolof <laughs> dama dama dama yàkkam la dëgg la dëgg la dëgg la député. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf kontaan nan billaahi kontaan nan jërëjëf député. moom de taat bu rek ko yàqal. Eh, li ñu naan woote yàlla gën bu waaw wax dëgg yàlla yàlla ñëwati na. waaw gën a garaaw nag laa lay wax décor buñ la ko buñ la ko tuddee rek. yow lu mu gàtt gàtt fukki million lañ ko gañe fukki la fukki million te am na ñoo xam dañ lay may kër doole ci may la oto doole ci. déet ca man li ma gën a li ma gën a jaaxal mooy nee na damay jël décoru président ba pare moom mu jëlaat mu jëlaat ab décor moom. kon kay tegaleel ma ko kon kay nga yem. allahu akbar. kon kay 20 millions la ñu am. ay waay ay waay ay waay yàlla ngi fépp. yàlla ñëw na kay. eh eh ay waay millionnaire. bis bu ma nekkee millionnaire. Mhm. nga nekk 500 millionnaire. barke yonent bi du ma la seeraan. waaw jërëjëf waa lii. de 10 000 la joxe dañ dem ba kër ga rek. kaay eh. damay rey sandaay du 10 000. yow tamit nag 10 000 li. fu ñu na nga wane fa ak baaraam. 70 000 mooy lan. teel teel.